di sant sëñ Tuubaa di ñaan sëñ Tuubaa mu yàgg fi lool ndax lii c'est la première fois mu am fi kenn yaakaar ko woon nii mu amee nii kenn yaakaar ko woon ñu koy sant wér di ko ñaanal yalla dool ko kattanal li mu yéene ci yoonu sëñ Tuubaa mu liggéey ko ànd ko taalib yëpp parce que sëñ Fall loolu moom ñu ngi ci bu wér a wéerul masque yi moom ñu ngi saakonte ak moom ginnaaw moom foo ko fekk ñu ngi toog takku masque am ñun ñëpp dañu ci war a maase loolu mooy ndigal la nit ci maase yàlla defal jàmm ak yàlla defal fan gudd. seen sant bu baax ah xanaa sant Serigne Touba rek bëgg sëñ Touba rek doyloo sëñ Touba rek yaakaar sëñ Touba rek ba lépp lu mu woote rek suñ xol yi day sedd guy barke sëñ mbaam Bamba sëñ Muntaxa yal na fa yàgg te a ah, xanaa li sëñ bi digle rek ñu def ko sëñ Muntaxa yal na fa yàgg te wér Mbàkke baal la. waaw di sant Serigne Touba bu baax di ñaanal Cheikh ba Bassirou mu yàgg fi lool te ànd ak wér te di sant bu baax murid yi wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na waaye lii kenn ku ne war naa dal sa xel. ndax yaakaar naa boo ñëwee ci bis bi rek da mel ni màggalu Touba la yaakaar naa ren moom ñetti màggal am màggal gii am na màggal Daaru Xuddoos ñëw màggal Touba ñëw ñi ngi ñaanal Cheikh Mountakha Bassir mu yàgg fi loolu tànd ak wér jërëjëf yal na yàlla def xéwal waaw waaw lépp ñu ngi ci ci ndigal li li nga xam ne Cheikh Mountakha Bassir moo ko digle ndax nee na képp kuy ñëw na nga takk sa masque ak lépp luy war dëkk bi nga def ko Touba ca kanam it ñoom itam ànd nañ ci liggéey bi daanaka ruus yi moom itam mi ngi dox ni mu war a doxee wa ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex di ñaanal ñëpp lépp luñ fi yóotu rek yàlla na suñu borom jotal ci barke xasaayit sëñ Bamba yi. ah, ah li ko dundee xanaa mbégte rek ak xol bu seddu guy ndaxte ñun moom murid moom ndigal rek la ñuy xaar waaw ah, sëriñ bi jox nañu ndigal waaw ah, ñu jëfee ndigal boobu daanaka ànd ak mbokk taalib yëpp maa ngi ko si ndigal loolu sëriñ bi joxe euh, fas yéene dund xasida jàng alxuraan sellal ko comme def ko ni ko sëriñ bi bëggee laal noonu rek dañ ko fas yéene doxalee incha allah waaw moom loolu moom wax dëgg yàlla moom ñu ngi koy respecté bu baax a baax monsieur di béré takk masque ndax fii mbooloo mi koo si gis mi ngi takk masque am aj ko ba si kaw waaw fas yéene doxal monsieur béré moom daal instant yi moom amu yaakaar naa ne ni ko sëriñ bu bëggee rek noon lañ koy doxalee incha allah rabbi man man tuwaa gi laa dëkk nag waaw fi laa dëkk mais sant sëñ Tuubaa rek ñun ñun maanaam danoo bëgg ba mënuñoo wax barke Cheikh baam ba ñu ngi sant Serigne Touba bu baax a baax maanaam ay mbiri corona beeg yooyu yëpp barke Cheikh Ahmadou Bamba bu fi amoon ñun sant na Serigne Touba jërëjëf. maaleykum salaam kontaan rek ak bég barke Sëñ Touba yokk ak ndam ak rek xanaa di doolee sant Sëñ Touba rek xam na Sëñ Touba mooy waat boppam. di ñaanal xalifa bu tedd bii nga xamante ne moo fi nekk toog toogaay bu jekki bii ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wër mbooleem jullit bu fi ñëw lu mu fi ñaan rek yàlla ko yàlla nangu fulal ñu ko ci barke bi sëñ Touba xam na sëriñ Touba moom kenn la ñu ngi koy kenn laat tey jii mooy wanewaat boppam waaw loolu rek lañ ci amoon luñ ciy barkeel. waa ndigal loolu moom lu sëñ bi joxe lu ne ñu xam ne jëfe ko rek mooy loola mesure barrière yi ñu joxe nañ ko defee ni ni ñu ko sëñ bi digalee rek jëfe ndigal li daal moo ñu fi indi ak ñaan julliwaat ci yonente bi sallallahu alayhi wa gën a sant sëriñ Touba mi nga xamante ne amul morom daal. waaw ah, bés bi ñu ngi siy sant bu baax a baax a baax xam nga di santaat Serigne bi bu wër a wër waaw ñun nag ñu ñooy waa Touba Darou Khoudoss CDK dañoo ñëwoon fii di barkewul si bis bi waaw di si ñaanaleel bépp bépp jullit di di ñaanal ñëpp santetu daareen waaw dañoo indi woon ay jël ay masque ñun sax loolu ñu fi indi initiative boobu. waaw loolu ñu fenn non léegi lañ fi ñëw mais suñu boos bi mu ngi ne la mën nga ñëw nga wax ak moom moo nekk nii Thierno euh, xanaa sant rek di sant yàlla di gërëm ñëw lu ñu am ñu bokk ko indi ko ci yoon bi indi ay gel indi jàpp ci liggéey bi indi ak gel ak masque jàpp ci liggéey bu lutte Covid bi jàppale ci woy ci ndigalu sëñ bi daal waaw ñu ngi respecté mesure barrières yi parce que ñu ngi góorgóorlu képp kuy balaa ngay dugg ci jumaa ji balaa ngay def daal nañu exiger nga takk masque yéegal sa masque def jël sa loxo ku si nekk jël sa matuwaay gaa ngi woy ci ndigal li daal waa xanaa ñu woy ci ndigalu sëñ bi rek takk masque yi góorgóorlu ku nekk góorgóorlu ci bés bi ci woy ci ndigalu sëñ bi waaw bés bi xanaa am ci mbégte ak kontaante bu baax a baax rek xam ne ndigalu sëñ bi mooy mooy suñu lépp tey ak ñu fas yéene rek góorgóorlu ci comme ni mu ko diglee waaw waa misil barrière yi xanaa comme ni mu ko diglee rek ñuy fonk bu baax a baax rek comme ni mu ko diglee mooy takk euh, maska la gel waaw noonu daal liñ ko fas yéene dundalee bés bi tey.